auzu billahi mina shaytaani rajim bismillahi rahmaani rahim jërëjëfe Serigne Touba jaraw lakk maam Cheikh Ibrahima Fall Lamp jërë ngeen jëf euh, sunu mbokk ñi nga xamante ne ñooy taskatu xibaar yi ñëw fii tey Géejawaay arrêt du Balès kër Serigne Lamine Bara Fall. waxtaan tey ci wàllu wàllu doole wàllu ngóora wàllu kattan ak wàllu sëy ñu ngi leen ciy déglu bépp question bi nga xamante ni posé ngeen ñu ko ci rek incha allahu rabbi dinañ ci mën a waxtaan sunu kéemtalaay kàttan joxe ci sunu xam-xam partage ko ak yéen donte nag xam-xam moom lu jafe waxtaane la ci jamono ji ñu toll waaye nag dañ ci dañ ci waslu àq sunu kéemtalaay kàttan li ci des rek incha allahu rabbi yàlla nekk njëriñ ak dégg ak topp. ñu ñaan ba képp ku ñu yàlla booleel incha allahu rabbi ta ñu nar la jëriñ yàlla nañu sunu borom wanale képp ki nga xamante ni itim sunu borom. namm na la gën ci yow yàlla na la ko yàlla defal te yóbbu la faray faj ak li gën ci yow ci baaxu yàlla ci màggu yonent bi ak aminu loolu soo ko déggee maanaam forme yi am ci dysfonctionnement érectile dafa bari tout d'abord dysfonctionnement érectile définition mooy góor gi nga xamante ni dafa am jafe maanaam mi ngi am soxna waaye dafa am jafe pour sëy moom normal jafe nag pour wàllu sëy nag nekk na lu yaatu ndax boo ko seetloo lu ci njëkk dafa am faiblesse sexuelle mooy forme bi deuxième forme bi am na impuissance sexuelle troisième forme bi am na éjaculation précoce maanaam daal dysfonctionnement yooyu ñett ñoo ci gën a feeñ muy impuissance éjaculation précoce ak faiblesse sexuelle mooy ñett yi nga xamante ni ñoo ci gën a fës quatrième forme bi nga xamante itam jamono ji gis nañ ko muy ci wàllu sàkkara bi nga xamante ni dafa tuuti wala dafa ndaw wala mu dellu ginnaaw loolu moom bokk na ci ñi nga xamante ni jamono ji bëri na askan bi ak jeunesse bi ñi ci juddu ñu bëri seen sexe il mu am développement bu normal mais day am bu tuuti bi nga xamante ni daal day nekk lu doy waar loolu mooy quatre formes yi ci gën a fës ci wàllu dysfonctionnement érectile. jërëjëf cheikh bi jërëjëf euh, origine forme yi nag les origines des formes loolu soo ko déggee comme ñeenti forme yooyu ma jotagum cité donte nag bëri na lool waaye ginnaaw ñeenti yooyu daf ci gën a fës rek temps bi duñu ko may origine yi nag li ci gën a fës. mooy comme bi ma mujjee léegi ñi nga xamante ni seen sexe dafa tuuti wala dafa ndaw forme boobu li ko causé mooy surtout masturbation masturbation nag pour ñu ko xamul mooy mballu mooy xale bu góor bi nga xam ni wala nit ki nga xamante ni dafay xool téléphone am di am envie di fooy boppam di masturbé wu loolu bokk na ci li nga xamante ni mooy première cause yi bokk na ci li ci gën a fës éjaculation précoce mooy ki nga xamante ni dafay sëy waaye dafay gaaw a yegg loolu origine bi ci gën a fës mooy stress nit ñu bëri bu ñu stressé du ñu am éjaculation précoce loolu mooy seen origine muy ki nga xamante ni dafay ànd ak soxnaam mais du ma deux wala trois minutes sax day gaaw a daanu. kon nag bu ñu jëmaatee ci wàllu faiblesse sexuelle fatiguement muy coono dafa nekk li nga xamante ni day tax góor du am puissance du am puissance normale ak ñi nga xamante ni tim comme ni ma ko waxee sànq dañuy def masturbation ndax lu mat a leeral la mooy sexe dafa am yax góor boo mënti gis sexe dafa war a am yax bu nekk ci digg bi bu nga xamante ni moo koy may kattan may ko mu dëgër mooy tax muy am puissance mooy tax du am benn éjaculation bu rapide loolu nag bu ci nekkul dafay nekk li nga xamante ni cause lay doon ak mooy origine bi nga xamante ni day tax nit ki du mën a am puissance du mën a am endurance du mën a durer te du mën a yàgg ci wàllu sëy kon origine forme yi buñ ko doon seet yooyu la ak li ci gën a fesit muy ay garab xam naa dinañ ci gën a dem bu ñu duggee ci développement bi du ñàkk daañ dem ci question yooyu mais origine yi daal en fait en quelque sorte loolu la. nit ñi muy gën a dal nag dysfonctionnement érectile yooyu muy faiblesse sexuelle impuissance éjaculation précoce nit ñi ëpp ci ñi muy dal buñ ko seetloo jamono ji mooy jeunesse bi jeunesse bi moom vraiment sonn nañ trop ci lool ndax léegi xale yi dañuy juddu rek fi ñu war a amee soxna diggante quinze ans vingt ans ba vingt cinq ans trente ans dañu gis couche jeunesse boobu dañu am jafe trop. ci wàllu doole wàllu ngóora wàllu kàttan ak wàllu sëy ñoom ñoo ko ëpp ndax bu njëkkoon paa yi nga daan gis mag ñi nga xamante ni am nañu ay soxna am ay njaboot def nañ seen vie ba pare ñoom ñoo daan dem ba ci diggu àddina di am problème mu boobu waaye léegi jeunesse bi la ñu gis ni ñoom dañuy juddu rek gàllankoor yooyu di leen dab ak di leen dal jeunesse bi daal ñoo ci ëpp problème donte nag fléau la bi nga xam ni wala problème bi nga xam ni problème bi nga xamante ni Sénégal gi yëpp la concerné Sénégal gépp pour wax dëgg moom Sénégal gépp la concerné. Euh, li ëpp ci góor ñi quatre vingt pour cent ci góor ñi ñi ci ëpp ci ñoom ginnaaw am nañu jafe-jafe boobu bari na waaye nag jeunesse bi xale yi population bu bu nga xamante ni ñoo ngi toll seen buntu àddina ñoom la loolu gën a sonal. te loolu wax dëgg yàlla nekk na li nga xamante ne lu doy waar la nekk xale di doog am def sa vie ba pare yow da ngay manquer confiance si sa bopp wër yow mi boo takkee soxna sax doo ci mën dara wala boo amee soxna sa soxna day tëdd nga tëdd doo am benn envie doo sawar sax pour mën a ànd ak moom ci sëy normalement loolu nekk na li nga xamante ne lu doy waar la euh, symptômes yi nag moom niñ ko mën a xamee mooy comme ni ma daanelee léegi rek nga am sa soxna sa soxna tëdd nga tëdd pendant une semaine doo sax sawar pour ànd ak moom ci wàllu sëy bare na ci ñi nga xamante ni loolu mi ngi leen di daal ak ñi may seetaan ñi nga xamante ni ay jigéen lañ sax am nañu borom kër mais seeni borom kër duñu sawar bare na ay góor yi nga xamante ni itam ñoo ngi may dégg seen soxna day tëdd une semaine duñu sawar duñu sawar sax ànd ak moom te loolu kon laa ku ko sentir ci sa yaram rek war nga jóg dem xooli sa bopp. ñaareelu point ba mooy ñi nga xamante ni itam euh, bu ñu duggee ci seen kër rek dañuy tiit dañu seen fit bi day tëf tëfi wala dañuy érectionné ba mu jóg même pas quelques minutes mu am mu di mu di am dysfonctionnement sexe bi day peer day tuuti wala mu ndaw wala bu ñu tiimee seen soxna rek dañuy gis ni automatiquement loolu day bàyyi sexe bi day tuuti di bàyyi du ñu sawar pour ànd ak moom loolu mooy symptômes yi nga xamante ni moom lañ koy xamee te itam mën na def ay migraine bopp yi metti am ñoo xamante ni seen bët yi day lëndëm seen fit yi ak ay mettitu ndigg mettitu yaram yooyu yëpp dafa nekk li xamante ni nit ki bu koy sentir ci yaramam rek Euh, mën na indi ay gàllankoor yi nga xamante ni mën na téye dooleem mën na téye nguuram mën na téye kàttanu sayam waaw symptômes yooyu daal moo ci gën a fës. waaw risques yi nga xamante ni moom lañ ci gën a gis ndax boo amee soxna nga nekk góor wala amagoo soxna sax nga nekk góor ba pare yow mënoo dara ci jigéen risques yi mu lay indil dafa bari ndax da yàq sa àddina déjà booy liggéey doo concentré wu fi nga nekk di liggéey da ngay stressé wu. doo am benn motivation wu lu ci dara te encore day tas sëy góor gu amagul soxna sax jigéen boo koy labar ah mu gis ni yow mii kat sa ngóoro dafa day waar maanaam amoo kàttan dëgëroo pour ku jigéen ki du ko du sawar du sawar pour mën a def yow benn projet jigéen joo nekkal sa relation de dure jigéen joo mën a nekkal itam du la respecté yooyu yëpp nekk na ay risques yi nga xamante ni dafay yàq àddina góor góor daal dëgg-dëgg buñ koy wax ngóoro moo tax ñuy wax góor mais bu fekkee da nga nekk góor ba pare sa ngóoro normalul ah loolu moom vraiment dina mën a yàq euh, lu bare ci doomu aadama les risques des médicaments industriels mooy médicament industriels yi dafa bëri ay anti inflammatoire bépp garab bu am anti inflammatoire wala anti antidépresseur loolu nit ku koy utiliser tôt ou tard dañ la indil impuissance sexuelle wala mu indi la éjaculation précoce wala mu indi ay dysfonctionnement ci sa wàllu sëy te loolu itim kon lu mat a leeral la kon garab yi nga xamante ni itim ñoo ngi koy jaay dafa bari yi nga xamante ni dafay indi loraange ngóor ci wàllu dooleem ak ngóoram ak kàttanu sayam kon bépp gu garab bu nit di jël na fekk sa médecin moo lay bindal ordonnance bi nga war ko mën a jël ndax garab yi dafa bëri ay effets secondaires yi nga xamante ne mu ngi ci. beneen côté bi itim médicament yi. mooy am na xeetu garab yu bële yu tuuti yu ndaw yooyu damay bañ def la publicité pour eux am na garab yu ndaw yu tuuti yooyu gars yi di jaay pour wàllu sëy ndax yooyu itim ay aphrodisiaque la kon gars yi nañu moytu aphrodisiaque yi aphrodisiaque soo koy jël pour sëy au fur et à mesure da ngay dem ba sa organisme da koy reconnaître te sa organisme su ko ba xam ko ba xàmme ko bu yàggee day dem ba dootu la jëriñ dara voilà kon nag bu nit ki da ngay moytu autodépendance si yooyu moytu leen garab yooyu ñuy jël yi nga xamante ni daf lay pousser pour nga mën a sëy képp ki nga xamante ni am nga jafe-jafe ci wàllu doole nguur a kàttanu sëy nga dem seeti médecin wala nga seeti ku mel man ñu jox la un traitement adéquat bi nga xamante ni dana tolloo ak sa yaram di nga ko mën a jël jafe yi ngay am dysfonctionnement yi ñu consulter la faj la traité la jox la garab yu wér te wóor yi nga xamante ni macha allah. wax dëgg yàlla vivre ak nit ku impuissant c'est difficile c'est très difficile waaw nit bi nga xamante ni dafa am dysfonctionnement érectile dafa impuissant ci wàllu sëy jigéen buy dund ak moom métti na moom ci wàllu boppam itam dund bu métti lay dund waaye pour mu vivre ak jigéen dina difficile bon xanaa rek bu amee soxna su baax dina ko encadrer conseiller ko jàppale ko tekk ci yoon bi nga xamante ni bu fa bu ko jaaree dina mën a dina dina mën a wér ndax impuissant muy tële nit ku tële ah wax dëgg yàlla boo amee soxna nekk ak moom du ci gis boppam de du ci gis boppam bu la respecté nag am espoir am yaakaar dina xaar mais loo mën a gis am na fu mu yem am na fu mu yem kon nag vivre bu difficile la vie bu difficile la couple yi nga xamante ni ku góor gi dafa impuissant boo ko dee xool du am respect ci kër gi du am kàddu ci kër gi te dañ koy xas wala dañ koy xooli bët buñ la xasul nga dégg ko itam daañ la jëw wala ñu xool la ay bët te c'est un peu pour loolu kon nag c'est un peu difficile ñoo ngi masawu képp ki nga xamante ni dal na la te yàlla na la yàlla teg ci yoonu siraatal mustaqiim wane la la ak li lay jëriñ nit ku impuissant mën na éjaculer mais dafa ñàkk kattan du durer ñaareel ba day gaaw a daanu ñetteel ba itim day am faiblesse du dëgër fay am faiblesse amul endurance bi kon nag mu ngi noonu daal barewul njëriñ bu baax waa ci wàllu prévention bi ni koy prévenir mooy lenn lekk légume bu bëri ak lekk fruit bu bari loolu moom bokk na ci première conseil bi nga xamante ni ñoo ngi leen koy may moytu itam hamburger yeeg moytu lépp lu niin ak lépp lu gras beneen prévention bi nga xamante ni ñoo ngi ko ci wax mooy éviter de faire masturbation masturbation moom bépp nit bi nga xamante ni yaa ngi koy def jàppal ni tôt ou tard dina indi dysfonctionnement érectile ci sa wàllu àddina di nga faju ju ngóora di nga faju ju éjaculation précoce di nga faju ju faiblesse di nga faju ju lépp luy dysfonctionnement ci wàllu érectile faiblesse sexuelle éjaculation précoce ak impuissance loolu moom tôt ou tard sa àddina moom dana bari torop loo koy faju te dina jafe pour nga wér tant que nit ki mi ngi utiliser yooyu may wax incha allah waaw traitement bi nag am nañ ci benn gamme de produit bu ñuy wax rapido extra mooy solution bi nga xamante ni c'est le meilleur beaucoup plus adéquat ak ñetti pomate la yi nga xamante ni kenn du ko lekk te kenn du ko naan day faj lépp luy dysfonctionnement érectile ci faiblesse sexuelle impuissance éjaculation précoce lépp luy jafe-jafe ci wàllu doole wàllu ngóora wàllu kattan ak wàllu sëy képp ku ko am rek dina faju ba mu wér am ñoo xam ne itim dañ leen di proposer ay poudre yi ñu naan waaw am nay ay poudre yi nga xamante ne itim lu ñu naan la yi nga xamante ni moom la ñuy wax yokk Pastef waaw yokk Pastef it nekk na garab bi nga xamante ni macha allah poudre la su infusion nga koy jël soo ko jëlee dina traité du aphrodisiaque mais dañ la traité lépp luy dysfonctionnement érectile faiblesse sexuelle impuissance éjaculation précoce forme de traitement yi ñu ci am moom bari na yëpp a baax nag wax dëgg yàlla yëpp a baax ñu nag ça dépend bu ñu defee nit consultation ba pare après diagnostic ci la ñuy mën a xam ndax kii pommade bi lañ koy jox wala kii poudre bi la war a jël wala selon ni kii itam communication bi mu dégg lan moo ko intéressé ak lan moo ko arrangé li mu ci bëgg rek ñu defal ko incha allah en tout cas saafara am na fi solution am na fi yàlla mooy wéral mais yàlla nañu yàlla boole képp ku ñu yàlla booleel ba ñu faj la ci loolu ba mu wér incha allah. waaw jërëjëf Cheikh Babacar sama dernier moom mooy sant yàlla julli ci yonent bi sallallahu alayhi di ñaan yàlla defal ñu jàmm defal ñu xéwal defal ñu tawféex bu baax ba képp ki nga xamante ni sunu borom boole nañoo ak yow rek daañu la mën a jàppale sunu kéemtalaay kàttan ci sa jafe-jafe yooyu. képp ki nga xamante ni yaa ngi soxla rek mën nga ñu fekk Dakar Guédiawaye arrêt Double S kër Serigne Lamine Bara Fall numéro yi ñu mën a jotee mooy 77 169 45 45 77 169 45 45 77 160 93 93 77 160 93 93 Guédiawaye arrêt Doubalès Kër Serigne Lamine Bara Fall képp ku woote itam mën na la defal livraison a domicile ba fi nga nekk incha allah wala ñu ci numéro yooyu passé leen seen ay commande wala ngeen ñëw def consultation jàkkaarloo ak ñun ñu régler seen i problème incha allahu rabbi ci kàttan yàlla ak baax baaxam ak yërmande